faire Fatou. bon man dérange euh, ci parti bu mag bu mel ne parti démocratique mhm. sénégalais. mën nañu d'accord parce que ñoom dañu yóbbu kalaame ba ñu demee conseil constitutionnel daf leen désavoué. parce que cette loi constitutionnelle PDS moo ko voté à l'Assemblée nationale ànd ci ak les députés de Benno Bokk Yaakaar. Mhm. conseil constitutionnel ni leen dafa censurer loi constitutionnelle boobu nga xam ne voté nañu ko à l'Assemblée nationale. d'accordu ma ci ñu dàq élection présidentielle yi mhm. mais yamu ci mënoon na gën a ferme sax mais foofu ba tey li Ndeye faatu wax léegi muy rôle de régulateur et quand on parle de sept sage je pense que sagesse foofu la ñu koy xaar may nañu porox ndool le président de la République Macky Sall léegi na ci waxtaan lay nekk du nekk force xam lu nekk force mooy dañu koy yóbbu kalaame ko ka nga xamante ne suñu bànqaasu réew mooy l'institution suprême mhm. moom moo dogal ne nii lay tere terewul indi na benn porox ndoll bu mu may les autorités compétentes et boo ko waxee wax l'administration mais aussi des acteurs à que ñu mën a am fu ñu mën a waxtaanee ba am consensus ndax consensus moo mag lépp ci loolu nag dañ ciy waxtaan njëkk boobu ñu président doon wax je pense que fii sax la ñore mooy que tous les acteurs ñoom ci seen bopp ñu joxante njëkk joxante cër ñu toog waxtaan ñu trouver un consensus pour l'intérêt général ba ñu dem une élection présidentielle boo xam ne dafay ubbeeku mhm. élection boo xamante ne Karim Wade ci boppam dina mën a ñëw Sénégal bokk ci yooyu élection sénégalais bu ne bëgg nga Karim Wade taxaw battre campagne nit ñi gis ko xam bu baax a baax pendant toutes ces années ñu naan Karim Wade est candidat au moins mu ñëw nekk candidat mhm. ñu xool ba xam lan lay peser politiquement ñi ko bëgg a votel votel ko nit ñi bëgg nañu coow li fi am pendant deux ans que Ousmane Sonko soit candidat mhm. xëy na am na ñu bëgg Abdourahmane Diouf soit candidat Bougane Gueye Dany soit candidat Aminata Touré entre autres bu weesoo les 19 yi nga xamante ne nekk nañu candidat mhm. parce que loolu lim bu bari ak lim bu tuuti du moom moo ëppal solo nit ñi li ëpp solo mooy ñoom élection bu ubbi ko boo xamante ne nit ñi dinañ tànn kan moo leen doy et faire le bon choix mhm. mais day nekk ci loo xam ne consensus la waxtaan la entre les acteurs et mu nekk waxtaan de manière sincère mhm. pour que ñu bañ am une crise post électorale boo xam ne dañuy waxaat ay waxu politique pendant encore quatre ans ou cinq ans parce que Sénégal doyal na quand ci loolu. ngoog euh, Fatou Abdou ci euh, wàllum politique la ñuy des ba tey ak dialogue politique euh, dialogue national mi nga xamante ni moom la njiitu réew bi président Macky Sall woote waa taxawu Sénégal bu Khalifa Sall nekk itam candidat ci élection bi ñu war a fal njiitu réew mu yees la ñu xamle mooy dialogue am na ba noppi fali lu kundul bokk ci ñoom rax ci dolli sax ni xel ñu euh, joxe seen euh, dogal tudduñ ci wàllu wàllub euh, dialogue Falilou Koundoul bokk ci cercle des universitaires bu taxawu Sénégal addu ci micro yu nu sabalde conseil constitutionnel bi nga xamante ne tey jii c'est le juge électoral waxul ne nañu delluwaat dialogue dafa ne le calendrier républicain nañ ko respecté ndax loolu mooy li nga xamante ni moo ñuy jural jàmm calendrier républicain buñ ko respecté nag la ca des mooy fexe ba organiser élection yi dans les meilleurs délais ci ñi nga xamante ñoo ko seeq ndax fi mel ni amut kenn xalaatul ñuy commencer par le processus li ci des mooy acteurs nga xamante ne ñoo bokk ñoo nekk ay candidat mais ñi nga xamante ne ñooy organiser élection yi présidence la république euh, de euh, ñi nga xamante ne en matière tribunal ñoom ñoo nekk les juges mais ñooñu ñoo ñi nga xamante ne ñoo war a toog waxtaanee ko waxtaan bi mënut a weesu kañ lañ koy organiser ndax ñi nga xamante ne mënuñ mënuñ koo xët mooy ne à partir du 3 avril président Macky Sall mënatul jiite Sénégal en sa qualité de président de la gis ne wayu politique yi euh, seen kàddu yi dafa waroo jëmale ko ci dialogue national bi euh, naka noonu itam ci euh, ñi nga xamante ne ay analyste politique lañ ñenn ñi bu ñu jàppee ni warta am ñeneen ñi ñu ci mel ni docteur kii di docteur ci wàllub science politique di Abdou Khadre Sanogo moom di woo acteurs yi ci ñu bañ a xool seen i ay intérêt bopp ñu nangu toog sekkub waxtaan bu dëggu ngir ñëpp mën a bokk ñu déglu ko.

wax te yàlla tax dañuy wax te seet Sénégal dañuy wax di xool lu dëppoo ak yoon ak lu jaadu très sincèrement suñu buggee réew mi dal mooy nañu boolewaat ñëpp ñu sumbaat beneen tri bu bees ñu demaat defaat beneen processus dialogue bi nga xam ne finalement dafa war a boole dañu gis ni division sax moom la moom la indi ci euh, longu politique yi. waaw li lu mooy intéret crypto personnel. égoïsme mm-hmm. ku ci nekk sa bopp rek la ñor mm-hmm. noo def rek yow ba mu gën ci yow rek ci loolu rek ngay xool alors que intérêt général bi mu war a primer mm-hmm. te bu intérêt général bi primer rek ku nekk di nga dem ñu échangé pour seet lan moo gën ci Sénégal parce que li gën ci Sénégal jàmm la te jàmm jooju ci waxtaan rek lañ ko mën a amee mais du ci feewaloo man su ma déggee certains acteurs naan ñun duñu jaloge wax dëgg yàlla man daf may métti xam nga tax mu may métti ñoom ba dialogué jotee dañoo jël seen fit takk ko dem dialogué ji ba am li ñu bëgg mais nag tey jii bu ñu wootee dialogue c'est pas parce que am nañu lu ñu bëgg que nee nañu bu fi dialogue am. Mm-hmm. il faut pas penser comme ça. Mm-hmm. nit ki tamit da ngay xool lii intérêt ñu bëri nga daal di koo sàmm mais bul xool sa intérêt bopp kese. Mm-hmm. cette liste des vingt man comprendre naa seen inquiétude mooy bu ñu ubbiwaatee processus bi tëggaat ko euh, mën nañoo bañ a jàll mais damaa jàpp ne examen entrée en sixième wala bac wala BFM soo ko xasee jàll suñ ko tëggaatee tam di nga ko jàll parce que am nga niveau bi. kon lu ñuy tiit. Mm. bu fekkee ne ñoom niñ ko jàllee rek jàpp nañ ne noonu ci anam yi wóor la mais buñ ko tëggaatee tam dañuy jàll. examen mënoo ko réussir léegi forcé ko suba. Mm. mënta nekk parce que am na niveau bi ba pare. donc ñoom pour man waruñu am benn inquiétude par rapport ak ñu ja valider seen candidature wi ou parce que li gënoon a jafe jàll nañ ko ba pare te buñ tëggaatee mbir yi seet nan la ñuy changer modalité yi gëm naa ne ñoom it war nañoo mën a bokk ci nga xamante ne ñooy participer ci présidentielle bi mais lu mën a am euh, politique bi man vraiment loolu duma ko cautionner parce que dafa mel ni ku nekk égoïsme moo tax ngay wax alors que dañu waroon a xool li gën ci renforcement de la démocratie sénégale surtout ñu jéem cee œuvrer mais jéem a dindi lépp loo xamante ne dafay nasaxal suñu démocratie te li fi jot a xew fan yi yëpp ñëpp xam nañ ne du luy renforcer suñu démocratie. c'est clair alors euh, Fatou Abdou ndax mën nañoo am date bu bees euh, corriger itam la euh, lajjiteef yi amoon ci processus bi sans dem ci dialogue. waaw il faut il faut ñu waxtaan loolu lañ doon wax sànq bu ñuy wax concertation loolu moom moo tax. Mm-hmm. maintenant ñi ñi ko bañ tamit euh, euh, kenn ku ci nekk ndey Fatou wax na ko léegi. say mm-hmm. intérêt ngay jiitu mais également da mel na kuy tontu ay wax yu jiitu woon moo tax gis nga les politiques il faut que seen relation yi saine parce que yéen maanaam kat moo xalaatoon. que ne mën nañu yegg foo xamante ne dañuy xëy suba tere libérer des détenus. Mm-hmm. kan moo xalaatoon ne dina am ku jógee ca président Macky Sall dem ca Ousmane Sonko. en politique il ne faut jamais dire jamais. te loolu moo lay wan na yow li la arrangé wul démb bu subaa mën na la arrangé. Mhm. Khalifa Sall bi mu demee dialogue opposition bi ñu ci bari lu ne lañ ko wax. kenn dafa dem pour deal dañu dem pour dialogue. Mhm. moom tamit aujourd'hui ce dialogue ne l'arrange loolu mooy dëgg. arrangé wu ko moom tamit ñi dem dialogue moom moo tax gis nga lim leen di wax ak lim leen di tudd mhm. ñu waa PDS bañ demee jaloog ñoom tamit lu nekk wax nañ leen ko aujourd'hui ñoom tamit seen situation moom moo laaj ñu dialogué parce que bu ñu demee dialogue dinañ reprendre le processus dinañ bokk lee spoliés ñu wax ko ñu bañ ko wax li ñu bëgg wala boog li gën ci ñoom moom mooy ñu dem ubbi waat le processus électoral mën a tëggaat yeneen i élection kon kenn ku ci ne sa intérêt moom ngay xool kenn ku ci ne également fi situation bi toll ak li la arrangé moo tax kenn ku ci nekk sa morom bu nekkee ci li ko arrangé da ko ko war a nangul mhm. parce que loolu mooy tax bu ëllëgee wax ji du la dab aujourd'hui il faut que ñoom ñu toog ñu waxtaan mhm. parce que mënuñu bañ a waxtaan benn jeu la mhm. benn élection la benn jour la buñ ca paree bu ñu